li leen di daal ñuy dem ba dem ba ci école day def examen amoo kayit yooyu yëpp lañ bëgg éviter su ko defee chef de quartier yi chef de village yi am na carnet yoo xam ne defar nañ ko suñ ko tegee seen loxo ñoom dañuy doon ay relais yu am solo yoo xam ne nii képp koo xam ne nii am nga xale ci koñ bi am nga xale ci biir quartier bi am nga xale ci biir village bi maanaam muy xale bu soo a gane àdduna nga mën a dem ca ñoom su ko defee nga déclaré ko ñoom ñu jël kayit yi ñu war a jël am na carnet yu ñu leen di jox bu ko defee ñoom suñ ko remplir bu ñu demee weer wu nekk ñu indi ko ñun ñu dugal ko ñu officier d'état civil yi ci biir registre yi ñu soog am ay kayit juddu loolu dina tax tey ñi nga xam ne dañoo taylu na ñëw ba fii di defi déclaration ci mën ko defee léegi ci seen chef seen chef de village wala seen chef de quartier kon dañ leen ko ba dutuñu amul ba xale yi li nga xam ne seen droit la muy am maanaam kayit yoo xam ne nii kayit juddu la dutuñ leen ci gàllankoor loolu daal mooy itte bi moo taxoon nag ñu woo chef de village yëpp. woo tamit seeni secrétaire ndax liggéey bi liggéey bu am solo la état civil du ku nekk mën naa ko bind état civil boo ci bind da ngay bind lu leer parce que ne lay wax ne la waruloo far dara waroo ca def euh, gom waroo cee baare waroo cee def lànkar loolu yëpp dañ ko ciy tere kon nag ñoom chef de village yi comme dégg état bi initié na kaye yooyu pour bëgg a jegele toujours administration bi li war teefam ak population yi ñoom it nañ jël seen i matukaay secrétaire yi ñuy jël doon ay secrétaire yoo xam ne seen xalima dina rafet seen mbind dana leer ci liñ leen di def la nañ ko def ba bu ñëwee ci ñun ñun ñu koy sotti ci carnet bi dañ ko def ñaari xaaj benn xaaj bi pour déclaration de naissance la wala bokk ñi bëgg nga xam ne ni dañuy soog a euh, gane àdduna ñu war leen defal kay ci wolof beneen bi mooy décès yi ñi nga xam ne dañuy faatu su ko defee faatu gi tamit ci chef de quartier bi chef de village bi mën na bu fekkente ne ci biir quartier bi am na koo xam ne kii ci liggéey am na fu mu war a jaar ba ñëw ci moom def déclaration bi waaye moom buñ ko buñ ko buñ defee déclaration bi ci wetam toujours li muy signifié moom kayit bi muy def du kayit bu définitif waaye nag document de base bu am solo la boo xam ne toujours mënees na cee sukkandi di ko xool su ko defee day laaj kayit yi nga xam ne ni wax nañ ko ne moom la war laaj muy nga xam ne ni xëy na le euh, docteur bi joxe na ko. ak it mu génne photocopie carte ki nga xam ne ki mooy ki wàcc liggéey ak ki nga xam ne nag moo ñëw jël responsabilité di ko déclarer kooku tamit mu indi kayitam loolu lépp it kon ni ñu waajalee naissance yi noonu lañu ñu waajalee décès yi carnet bi benn carnet la xaaj bi jiitu mooy ñi ñi nga xam ne dañoo jur ñu leen déclarer beneen bi ci topp mooy ñi nga xam ne dañoo wàcc liggéey ñoo leen di déclarer. xam nga nit su fekk ci benn structure sanitaire la ko defee muy hôpital wala centre de santé. docteur yi ñoom dañu bind benn kayit wane ni kii gaañu na genre de décès bi mën nañ ko ci préciser ne kii lii kan moo ko moo ko faat wala boog lii moo tax mu mu mu wuy ji boromam kayit boobu moom su ko yoree ki nga xam ne kii dafa dëkk ci quartier bi su ko neexee mën na dem directement ci chef de village bi jox ko ko su ko joxee boole ko kayitu juddu kooku su ko boolee ak moom kayitu yooyu moom moom moom astafurla mu ko boolee ak euh, photocopie carte d'identité boole kook moom it moom ka moom mi déclaré ji décès bi mu indaale loolu photocopie d'identité ñoo xam ne ëllëg kii moo fi ñëwoon moo ne woon diw moo gaañu moo indi fi indi kayit yi bu boobaa y' a pas de problème moom day jël rek enregistré envoyé ñu li ci xaw a compliqué tuuti mooy décès à domicile ak naissance à domicile loolu mooy koo xam ne kii jigéen joo xam ne dafa wasin ci wasiniwul ci benn centre de santé léegi chef de village mooy bind rek dal ne euh, diw wasin na ci sama quartier waaye léegi euh, ñi nga xam ne ñoo nekk direction de l'état civil national ci ministère bi dañu wax ne waroon nañu man bu fekkante ni nit ki faatu ne ci kër ci foo dem am na agent de santé bu fa war a ne ak bu mu mënti doon ñu dem wooy ko mu ñëw mu xool mu constaté parce que tamit affaire faatu loolu problème santé la donc waa santé dañu war a ñëw bu defee certificat de domicile bi ñoom tamit ñu wane ci seen présent gis ne loolu teewe nañ ko loolu dafa gën a wóor loolu